man dama jàpp ne. jeunes yi nga xam ne tey euh, dañuy wane benn désespoir. Mhm. Euh, nee nañu kuy am na ku ne kuy jël gaal pare pare pare dee dee ci dëkk bi du du du lu ko të. non dëgg lan nga leen di wax. dafa am ñoo xam dañuy toog seen kër. am lu ñu lekk am lu ñu naan pour ñoom tout va xam nga man maa ngi lay ne toog naa 4 ans yoo xam ne j'ai pas man sama papa mooy jël xaalisam bi ma ko jox kon nit bu toogee amul dara man xam naa loolu lay signifier donc nit bu demee ba nga xamante ne moom yemale dund ak dee la yemale si jël gaal am na ñoo xam dañuy dem si géej gi ñëw dañ la naan bu gaal taxawoon léegi nii ñoom dañuy demaat mais loolu ça veut dire dafa am benn misère social bu métti bu ñuy dund donc jeunes yooyu noonu yëpp tey il faut ñu xam ne tamit xel si doomu aadama mooy lampe bi koy niital am na yoo xamante ne tey situation de pauvreté bi am Sénégal ñi nga xamante ni dañoo taal seen bërëbu liggéeyukaay ñi nga xamante ne dañoo yàq seen ay commerce ce sont des chômeurs en plus. ak les intérêts étrangers yu ñu nekk. di di di attaqué di compromettre la climat des des, des affaires. jeex donc yow finalement li nga doon wut a saafara mer la rek booy sorti boo xamante ne safara buy taal fajul dara kon nit yi si boppam surtout xale yi nii parce que avenir avenir bu Sénégal ñun la de toutes les façons donc ñun nañu ànd ak suñu xel nit ki lu mu warul am du ko am. nit ki lépp lu muy dund rek na xam ne loolu dafa bokk ci desaaw man li ma gën a bett mooy la fait que ma def sept ans armée démissionné j'aurais jamais imaginé ça mais ba mu demee ba mu jot dama ko def tey lépp li ma ciy dund amul lenn loo xamante ni dinaa yow suba teel naan fan laa jëm est-ce que parce que suba day jeex c'est clair amul lenn lu dul jeex kon nit da ngay gëm yàlla gëm yàlla dafa baax surtout boo nekkee ci situation boo xam ne da nga ñàkk parce que yàlla ñi néew doole la àndal. lan moo tax nga décider jël la la la parole pour tenir sa ce, ce discours la waaw parce que dama dem ba man si sama bopp xam nga nit lu mu xamul xamu ko dangay dégg ay sénégalais yu bëri yoo xam dañ leen di tàllal micro ñu naan nañ taal dëkk bi aller déloger le président nga xam ne ñii di wax ñi xamuñu li ñuy wax lan la bu doon ne rek képp ko am lu la metti nga waxee si mettit boobu kon kenn si ñun du fi nekk soo gisee les institutions am parce que loolu moo tax ma xam ne man dund naa affaire yoo xam ne mosuma ci wax dama toog rek jàpp sama jàmm mais dama xam ne tey bis bi nga xamante ni moo jot pour ma wax ko jot na xëy na ñu bëri suñ ko déggee ñoom mën nañ ci jógee ànd ak seen xel voilà man waxal nañ ma lu nekk mais dangay xam ne am na yoo xam ne da ngay muñ te noonu la yow yaa jël engagement yooyu man ñi nga xam ne maa ngi leen doon xool Casamance bari ñi damay bàyyi. mais su ma bàyyee duma dem je vais mener le combat parce que tout ou tard gëm naa ne mën naa toll foo xam ne ñii seen problème yi mën naa ko faj mais ba may def loolu noonu mesuré woon naa ne que ak lu mu metti metti metti rek nit yooyu noonu man ñi ngi taxaw di ma xaar parce que tey Casamance lu ma fa waxul gëm naa ne ñu bëri mënuñu ko wax su ma demee tey ba mën fa def dara lu ma fa deful gëm naa ne si man la si man la nekk en fait donc moo tax ma ñëw tey révéler loo xam ne mosuma ko wax te yii nii même ñi ma dëkkal sax yenn affaire yi du leen ko wax parce que dañuy yaakaar ne boo génnee si mbedd bi sax ñu këf la yóbbu xam nga nga def émission ba pare ñu proposer la un milliard xam nga loolu c'est de nga de déedéet ak yeneen affaire yoo xam dañ la koy def mu metti mais nga xam ne noonu la doo bëgg kenn yëg ko parce que nit ñi aussi dañ lay soutenir te yenn affaires yi suñ ko yëgee seen xol day gën a metti voilà donc euh, man noonu laa ko gisee te bi may ñëw sax je craignais émission bi nekk émission bu diis parce que émission yi mu mos a def yëpp bi mos gën a metti parce que j'allais sortir des choses extrêmement dures quoi te noonu laa ko dundee voilà donc euh, ma xam ne rek lu nekk nit ki bu koy def dans la vie il faut mu ànd ak muñ il faut mu ànd ak gëm yàlla parce que tôt ou tard day jeex après da koy nettali rek et aujourd'hui je suis fier de raconter ça xam ne jël naa engagement si lu ma gëm dund si li ma siy dund ma xam ne noonu la ñàkk naa si lu ma si ñàkk mais am naa si lu ma si am aussi et c'est comme ça. lan nga ban yenn regret nga am. Euh, personnellement aw ma regret honnêtement parce que dama mës wax ni bu ma demee ba am benn once de regret si la fait que ma démissionné loolu yàlla bu ma ko yàlla baal parce que ba ma demee ba xam ne dama war a démissionné j'ai compris que je devais ma xool ko ba xam ne du mer moo tax. du frustration du dara parce que en réalité man kenn defuma dara fuloo ma kenn parce que engagement politique ci kaw frustration loolu dafa dangereux. engagement politique ci kaw. frustration ci kaw loolu dafa dangereux. moo tax da gis ñu bëri tey di dund yenn situation yi mais dañ koy wëlbatiku def ko arme di ko xeexee wala ñuy victimiser wu. xam nga tey man li ma jàpp euh, lu ñu ma def lu extrême mooy tey ñu effacer sama tour ci fichier national mënuma am carte d'identité. Ah ah. ba jour bi nga xamante ni kenn dem na ba ne su ma ko contacter mu defaral ma carte d'identité même kooku noonu pour ma dem si moom sax da ngay laaxatu parce que tu le mets en danger ñu bëri tey mënu dem si ñoom parce que je suis suivi je nga xam ne donc da ngay nekk si benn cadre restreint. fi mu nekk nii amoo pièce nationale d'identité am naa ko léegi. Ah, parce dama dem si kenn mu ma da ngay ñëw bërëb sangam. mais même kooku noonu pour ma dem si moom sax da ngay utiliser. am nga passeport oui vous êtes libre de sortir. du territoire côté boobu moom voilà. aw ma aw ma problème sa sa dernier mot capitaine euh, Dieye en tout cas. c'était une c'était c'était fort c'était une émission fort instructive mm -hmm. euh, le message il est puissant mm -hmm. euh, et j'espère que dina dina tàbb mhm. ci nopp destinataires yi mhm. pour clôturer tout ça ce dernier mot à qui est-ce que tu as envie de lancer un, un, un appel pressant waaw man ñetti xeetu nit laay waxal damay waxal ñi nga xamante ne tey ñoo ŋànk réew mi wax ak ñi nga xamante ne tey ñooy kilifa diine yi mais wax ñi nga xamante ne tey ñooy ndaw ñi parce que ñett ñi ñoo fi nekk kilifa diine yi ñoom ñi ngi wax mais ma di wax ne wax boobu tey nañ ko gën a yokk mais surtout jëmale ko si ndaw ñi ñi nga xamante ni ñoo ŋànk réew mi nañu wàcc lépp luy xamb lépp luy fitna nañ ko teg ci suuf c'est important ndaw ñi ñoom seen bopp ñun dañu jàngal ne la jeunesse ce n'est pas l'âge des plaisirs mais c'est celui des combats les jeunes doivent porter tous les combats mais dans la discipline dans le respect des lois et des institutions bàyyi saaga wax yu ñaaw lépp loo xamante ne rek ci fugg la jëm mais ñu ànd ak seen xel privilégier waxtaan ak formation ba pare di wax ak mag ñi surtout c'est important c'était mon message de ce soir. <laughs> c'était ton message de de ce soir. Mhm. et dama lay ñaan. Mhm. nga di ko répéter. Mhm. di ko répéter waat. xëy na quitté nga le les les les rangs des des mhm. mais vous êtes resté un républicain. et puis vous êtes resté un digne officier. parce que mhm. un officier aussi. Mhm. Euh, ci noonu la ñu koy xamee. ci valeur yi muy làmboo. Euh, et puis ma di la ñaanal. yàlla yàlla yàlla yàlla jàppale la. leeral sa yoon. amiin euh, j'ai rarement fait une émission boo xam ne. <laughs> ci dama ci am dama ci am. dama ci am émotion bi émission bi reetaanu ma sax parce que ya hmm. li ñu lu ñu reeloo amul vraiment may ñaan ma lay ñaanal daal jou hmm. je je suis vraiment je suis vraiment touchée par ton témoignage. Hmm. et puis may ñaan li nga wax mu dugg ci xolu Sénégalais yëpp. parce que ce pays là ñu ñoo moom j'ai vu en toi aujourd'hui un patriote mmh. qui est venu faire un témoignage mm-hmm. pour euh, pour destiner aux, aux jeunes de ce pays là ak ñi nga xam ne ñoom ñooñu ñoom ñooñu jiite parce que souvent c'est autour de de ces injustices là que yenn frustration yi di naître mm-hmm. mais que jeunes yi xam ne ñun ñëpp dans nos dans nos on vit des situations très difficiles mais qu'on ne renonce pas mm-hmm. on ne renonce pas à la patrie on ne mm-hmm. renonce pas au pays ah Sénégal suñu Sénégal mm-hmm. ñun ñoo ko bokk vraiment maa ngi lay euh, remercier et puis di la di la ñaanal di la di la jaajëfal di jégalu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon euh, ñoom ñoo ñu doon seetaan c'est bon nous sommes tous des des, des humains, voilà c'est comme ça en tout cas mes respects. <laughs> merci. merci merci et bonsoir. merci, merci